tey bi débat social la parce que ñu ma koy laaj dafa bëri trop maire xale yu jigéen yi même góor yi ñu koy laaj. gis nga seen kër gii. Mhm. bés toogee dëgg dëgg dëgg dëgg ba gis nga ree ji yu bëri ay kaf ay ree ambiance. kër gi dafa war a mel ni Bercy. <laughs> wana ko ma eh wana dara. un. Eh? <laughs> waa wala de un. un jox des na neuf. moo tax tey ma bëgg ñu waxtaan si divorce man dama xamul mariage bi mooy tendance maye bu njëkk bi mooy tendance walla xew bi mooy tendance. jàpp leen ma ne ku nekk ak seen yaay ci biir kër gi. Mm-hmm. eh bu leen jooy parents de. mate naa leen fépp. Mm-hmm. leen doo nga metti ci kër gi. fii. Eh, ay non non on on on on rek ah. on rek on bàyyi noonu <laughs> doom. yow yaa ñàkk jom nii Aïcha kii baaxul kii dafa ay gaaf melentaanam sax bu jógee këram dugg sama kër ma désinfecté ko. lii nattu la rek bu yàlla teg suñu kaw bés bu ñu bëggee seetal daf ñuy seetal ba ñu set wecc boo demee ci yoon rumeur yi gën a bare egg fépp bu ko defee problème yi ñëw tegu suñu kaw.